ndax kenn ku ne xam na jafe-jafe yi nga xamante ne bi askan wi mi ngi koy dund jamono yi ñu toll ndax dem bi ak dikk bi wàññeeku na njënd mi ak jaay mi wàññeeku na lu bari taxaw na dong daara yi nag nekk ñoo xamante ne bii xëy na ñoo ci sax gën loru ndax ñoo ci gën a néew doole ñu confiné leen mënatuñoo génn mënatuñu am dara fenn kon faw ay bon volonté jóg jaayante fekk na fi nga nekk jàppale leen dimbale leen kon loolu moo sabab lii moo tax nañu ko defe woon ci njëlbéen ga tey jii ñu di ko defaat ànd ko ak conseil bi ngir jàppale leen ba ñu mën a dundal donga daara yu tol noonu moo tey jii mooy bis mu njëkk bi waaye fas nañu yéene bis bu yàlla sàkk ñu def ko fii ak ca koor ga bu ñu demee nag ba àgg ca koor ga danañu toog def évaluation xool ba xam liñ ci jot a dox naka lañ ko defee seet ba xam ci biir koor gi aussi ndax koor gi dafa am spécificité boppam xool koor gi aussi naka la ñu dimbaliwaate daara yi waaye rek di ñaan yàlla ba nañu àgg foofa mbir mi jeex takk ci dëkk bi jeex takk ci Sénégal jeex takk ci àdduna ba kenn ku nekk mën a dellu ci say ci sa yitte fas yéen fii ak koor ga ñu jox reer ñaari junni gone muy mille talibé ñu commencé ko tey te incha allahu rabbi fii ki Touba fas yéene loolu ñu def ko bala ñu àgg ci koor ga. donc amut amul lu ñu budgétiser ndax comme dañ koy def rek ngir yàlla foog naa soxlawul ñu naan nangam sax lañ ci ñàkk loolu taxu ñoo jóg li am solo rek moo di ne objectif ñu attender ko objectif mooy lan mooy gone yi buñ ñu demee ba guddi bu ñu xiifee nañ leen jox ñu lekk. te loolu moom dañ koy def sans compter ndax ki nekkoon fii ci kër gi loolu moom la fi nekk woon foog naa boolam yi tubaab gépp ci njaboot Sëriñ Touba kenn ku ne xam na ko loolee aussi moom la ñu wéyal ba nëgën ñu fàttaliku aussi li nga xamante ne président de la def na ko mu yëkkati 330 millions moom aussi jagleel ko daara yi fàttaliku aussi ndimbal ñi nga xamante ne bi sëriñ bi aussi mi ngi koy jox daara yi ak mboolem kilifa yu bari kon lii day dikk rek dugg ci action yooyu nga xamante ne bii kilifa yu baax yi ñu ngi koy def mu jëm ci daara yi ñu di ci woon nag ñëpp nag kenn ku nekk fa nga nekk lépp loo ci mën ki daara yi lépp loo ci mën ci néew doole yi rek na ko def ndax ginnaaw bu ñu joxe ay saabu joxe eau de javel suñu def foog naa li am solo nag mooy nañ jox nit lu ñu lekk ndax ajowu nañ ko ñu ne ginnaaw bu ñu sant yàlla sant Serigne Touba ci li nga xam ne moo xew ci dëkk bi ndax ci jàll bi nga tiitaange amoon na waaye fi mu nekk xel mën naa gën a dal waaye nag bu ñu naagu nañu continuer di fagaru nañu continuer di moytu nañu continuer di ñaan nañu continuer di respecter li nga xamante ne bii moom la ñu waa kër docteur yi di wax kon nañu xam ne bu fekkonte ne bii dañoo nekk ci ab xare dañ naan de gañe nañ benn bataille waaye guerre bi gañe guñ ko ndax tànk jàngoro ji mi ngi ci biir réew mi tànk mi ci biir Afrique tànk mi ci biir àdduna guerre bi jeexagul. ci ndimbalu. jàppandal bu baax bu Cheikh Abdou Bali le ministre tey jii nag lañ koy door te dañ ko bëgg def ba koor gi mooy maanaam chaque jour dañuy jël ñetti daara yóbbul leen reer ci dëkk bi ñu ànd ceeg Cheikh Abdou comme ni ko ak xale dëkk bi yépp loolu moo waral tey woote bi ñu woote fii daara yi njëkk dem mooy daaru la ak daara Touba Aliya moom la ñuy dem tey mooy programme tey bi. waaw moom moo jël initiative boobu ñu waxtaan ci ñu tuddee aussi programme bi tamit yàkkub soxna May yàkkub soxna May bu ñu ko waxee dañuy delloo njukkal soxna May mu Serigne Touba ndax ñëpp xam nañ ni mu daan doxale ci dëkk bi ñëpp xam nañ ni mu daan taxawoo néew ji doole ñëpp xam nañ ni daan taxawale daara yi moo tax ñu ne léegi concept bi duñ ko tuddee leneen lu dul yàkkub soxna May. bu ñu waxee conseil communal de la jeunesse rek amul politique ndax xëy na ñëpp a ci jeunes yi yëngu ci dëkk bi yëpp a ci bokk muy pouvoir muy opposition muy société civile ñëpp ci bokk kon donc amul politique xëy na lenn lañ am tey ji Touba moo soxla ci xeex jàngoro ji ñuy wax coronavirus conseil communal nak di ci bay Santir sentir nañ ne daara yi ak couvre-feu bi dootuñu yalwaani guddi gi ñun ñuy dem ngir leen ngir dimbal leen ba nga xam ne reer boobu dootuñu ko tumburanke ñu xeex bi ñoo ngi ci d'ailleurs ñoo ngi ci sensibilisation yi tàmbale woon nañ phase de sensibilisation nag daanaka daanaka fi ñu toll jeex na na ñëpp bokk xam ne combat bi bu jeexee Touba te jeexul senegal amul sens mais dafa war a jeex ci Sénégal yëpp jeex ci Afrique yëpp jeex ci àdduna bi yëpp